masque gant gel désinfectant ay xeetu matukaay yi askan wi di jëfandikoo ngir fagaru ci feebaru korona bile di lëmbe àddina koo ci dajal mu nga takku muuru mbaa mu sol benn ci yile matukaay coppiw doxalin bu mag ñu nemmeeku ko ci askan wi ngir xeex feebar bi moom Binta Faye lay wuyoo nuyoo di joxe loxo nag bokkatul ci ay habitutam Ah, li ma doon def lu bëri du ko def comme par exemple du ma nuyooti du ma joxati loxo accolade yi yooyu yëpp du ko defati en fait su may wax ak nit damay pousse tuuti pour que avant c'est pas sûr mieux vaut que ñu respecter consignes yi pour que maladie bi yàlla musal ñu si aussi. Mor moom it. ma joxe loxo soxna si. lu tax doo joxe loxo yow. non man moom vraiment même sama kër sax duma damay nuyoo nii rek salaamaaleykum maaleykum salaam waaw. waaw comme ni ma la def noonu. dañ ko war a saxal mu sax dàkk si ñun même bu li yàlla defee mu jàll ak jàmm ak salaam tamit dafa war a continuer comprendre nga ku nekk na yor mouchoir boo buggee sëqat wala nga bugg a tisóoli nga jël see mouchoir nga adopté woo comprendre nga booy joxe loxo yeeg nooyu yëpp tamit vraiment ñu ngi jéggalu mun na mun na ñàkk ko waaw. donte nuyoo aada ci réew mi te mooy tundiku ko day doon lu jafe Baba Soumaré jàpp na ni sol ay gants mën na ko ci génnee. corona bi rek moo ko tax. ça ce sont des choses vraiment. lii dafa nekk lu mënul ñàkk. moo tax ñu jël ay matukaay lu ci mel ni sol ay gants ak désinfectant yi aussi même su dee mënul garantir à cent pour cent. ay façon ngi nuyoo ñu daal koy xewal. Adama Bou Diallo di ñaax askan wi ngir mu gën a farataal lii di solum masque. j'ai entendu ces genres de masque là bon ça. ngir mën a aar suñu bopp ci anam yi mu waree rawatina ci ni ñu utiliser masque yi dañuy faral di wax ni ñetti waxtu yu ne war nañ ko changer loolu la ñu euh, digle fexe naa daal ba daal di jënd sama butéelu gel di ci raxas samay loxo suma ma paree daal di def sama saak. bu weesoo coppiw doxalin yi ndaje yi tamit dees nañu ko dakkal ngir moytu wàllante feebar bile.